mais li ma gën a métti si àdduna si musique Sénégal ah. Titi moo ma ko def. ni ma toroxalee mooy njëkk na ma dàq. si comme ñëw naa soirée di jouer benn claviste am jëpp cité sax bu la neexee de non parce que man lu may wax man ab taalibe Serigne Touba laa du ma ne bu dara. Mhm. si dëgg rek laay dox. parce que bu may wax sama biir man laay taxaw. Mhm. y avait un claviste Demba Kanté sama nit la nag sama xarit la. ba tey ma wax ak sama xarit la ñu ngi wootante téléphone ñu ngi déggoo. Mm-hmm. il s'appelle Demba Kanté. Mm-hmm. dañu ñëw soirée Demba Kanté ne ma booy bi daf fi ñëw deux jour commencé commencé jouer gars ñu koy may xaalis xam nga bon boo ñëwee rek xale jigéen ñi commencé la bëgg di la may xaalis et tout non du ma day arrêté wala ma bàyyi. ma joué première partie joué wul. titi ñëw war a yéeg mu ne ko booy bu wàccul du joué ma. c'était Madison. chantage ko. chantage na ko bu booy bi wàccul jéewu ma boobu y de des grands Badou ñoom vidéo rek yëpp gars yëpp di kaas non non def lii lii du yoon. y avait y avait un manager qui s'appelait Famara. TFM. Mm-hmm. ñu ne ma non grand wàccal suba nan la woo pour ñu régler problème bi ma leen wàcc non da ngeen ma naan bàyyil kay. wala wala wala wala wala bàyyil. mais wàccal si laa toog a waxtaan nag ak gars yi musiciens yi wax quelques musiciens wax ak man ma wàcc le lendemain di xaar seen coup de fil woowu ma ba mardi jotaat woowu ñu ma nga xam ne dàq nañ ma xam ne dàq nañ ma ñu continuer si si liñ ne mhm. ñu soxlawaat ma wowaat ma ma dem kër ni non boobu clavis bi war na ko bu yàgg def na ko li mu koy def ah, boobu clavis bi def na ko li mu koy def ba nekkatu fa si lañ ma waate ma ànd ak Titi nag def ko comme yaay ju ma ko woowee yaay di sonn ay pied sabar pied sabar yi géwél yi ñoom bàyyi dem ba di tegee maa ko dañ jël di ko dugal sama maalo oto ba ñu waree jeu ji ñoom Dijon sax maa leen fay yóbbu maa leen di jiitu monter seen pied sabar kon loolu bëgg la woon te man du ma tëgg kat kër simple kër si la simple kër si laa mënoon naa ne sama yoon new si mais comme yor naa oto pour facile leen tâche bi ma ne xaaral ma jël ki pied di ko def sama oto utul ko uus xam nga mos nga gis pied bi am uus tiit rek moo amoon groupe am xam dama def uus boo gisee nga ne clavier laa yor def loolu pour que ni bëgg liggéeyam ndox di ànd ak moom ma koy woowee yaay jox ko cër respecté ko di ko paas sama yaay téléphone du ko paas samay mbokk téléphone su may joué may def le maximum possible ci daan wooy may jooy daan na war a joué ravin ñu naan est-ce que dina feesam du fees même les musiciens en personne ils ñoom ñoom les musiciens en personne mm-hmm. doon doon wax naan est-ce que booy bi tey de du am dara mais suñu joué mu fees mu def résultat bu dugg see damay damay jooy damay xam ni prouvé parce que voilà man dama ko bëggoon ànd ak moom te yàlla àndandoo moom te yàlla rek tax suñ demee ba yàlla ñuy ànd mu neex tey mu naqari ñu ne Docteur Mal taxaw na si loo xam ne événement la ñi da nga man dama may mbokk dama may mbokk Docteur Mal taxaw ñu taxaw ñu ne groupe bi yëpp dañuy dem même les danses dañuy dem ba mu des benn nit ñu rocc samay kayit teg fële da ko ma ne ah, ndaw si neen ma wax di dinañ say kayit ko ah bon <laughs> ñoom ñoo xam seen biir. man xol bu leer laa fa laa fa dugge woon mhm. te xol bu leer naan lañ ma dàqewaat ndax waxuma mhm. te te mosuma ko wax lu ñaaw duma ko wax parce que man xawma lu ñaaw mosuma mhm. ko def lu ñaaw mosuma koo jëf lu ñaaw dama daan dem këram. di fombal ak di wax muy reek maak ay doomam ak lépp ñu nekk si jàmm ma def ko comme yaay ju dama daan bëgg ceeb sax na ko yaay suba toggal ceeb bu weex kon xam nga am na affinité te nangoon naa dugg si njabootam. boo ñëwee si après. après non ñu dem def seen voyage. sans yow. def seen voyage saa man dugal ay fecc kat ak def la leen neex dem seen yoon. def seen tournée. non ñu ñëwaat. Ah, ah. parce que bi ñu demee. Hmm. dama waxtaan ak samay mbokk man leen man de damay bàyyi ndax yawee samay samay frère ak samay mbokk yu nekk Amérique sama rakk bi bokk ak man ndey ak bàyyi taxaw na génn 10 millions ne dama lay defal visa nga dem seetaan doo jouer man ko non jaru ko samay mbokk yu nekk Paris fu ne si àdduna bi bëggoon di ku di ma woo dina ñëw waaw wala ñëw fekkee soirée pour ñëw seetaan si parce que ñun ku nekk ku wax askanu lawbe xam na ni ñoom ñoo fees Europe. askanu lawbe ñoo fees Europe. gars yi def seen collation man leen non lii su ma waxee Titi peut-être nit doo ko vedette du jiitu. Hmm. nga naan ko délégation bi dañuy ñëw pour nangam sang loolu boo ko waxee sax peut-être mën na man daal bu dem na bu fekkee dinaa dem dinaa wax dinaa dem yéen ñëpp ngeen dagg bii ngeen mais après par la suite ma leen dew ma ñoom ñëpp kenn demul. ñu ne ñu ne jaru ko. ab si la ñibbisi bi ñibbisee ma waxtaan ak samay mbokk ñu ne ma non bul bàyyi parce que boo bàyyi day mel ni affaire tukki bi moo tax te man wax day tukki dérangé wu ma ñu ñëwaat juillet nekk du juillet du juillet ñu war a demaat Guinée Guinée bii man bu ñu amul billet d' avion sax bu ñu ma nee daggal sa bopp billet billet d' avion ma daggal sama bopp billet d' avion. Guinée. Guinée bi. ñu ne ñu dem war a dem Guinée ñu ne non nan gindi nan ko wàññi moom. nañ ko dindiwaat teg ko fee. ñu dem seen Guinée ñëwaat man la daa yéen nag xam ngeen nag fu mu toll nii xam nga lan la. biñ ñëwaatee biñ ñëwaatee woowaat ma. <laughs> biñ ma woowaatee. c'était le premier janvier. man dama am contrat bul saxo mu tombé premier janvier. mu nekk lundi mooy lundi yi mooy jour lundi yi nga xam ne mooy jour mooy lundi retrouvailles yi nga xam ne ñëpp léegi àdduna yëpp xam nañ ko. moo doon moo ko joué y a un gars qui m'a appelé xaw ma ne mooy manager Titi allo ça va na nga def man ko ça va mu ne man la manager Titi man ko ak d'accord euh, Titi neen dañuy joué le premier janvier Ravin man ko ah malheureusement damay joué nag franchement damay joué. Euh, bulu sax bulu sax ça tombe mu nekk lundi te bu loolu mun ma ko bàyyi bon peut-être après boobu laa leen ngi dégg. ba léegi woowatuñ ma. toog mais Titi. Mm-hmm. xam naa dina ma dégg. Mm-hmm. xam naa mun mun dina ma dégg. mais man yaay laa ko jàppee. du woon sama musicien. mënoon naa gën a rafet. mënoon naa gën a jekk. te mu xam xalaat ni dafa jur ay doom. jigéen comme moom sukk jur. mais li mu dund ak man man jiwuma ko loolu mais ñaaw na trop mais nag man yàlla rek laa àndal ak sama ñaani waajur ak jëmmi Serigne Saliou booba tey maa ngi liggéey sama soirée yow xam nga si dara ma ko maa ngi def résultat maa ngi sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla euh, du yem euh, si jëmm jooju euh, léegi dama bëgg ñu demaat si ñeneen ñi fekkee ni am na ñeneen ñi dund naa ñu bari ñoo xam ni dund naa fii ak ñu bari ñoo xam ne bu la neexee nga lim parce que man yàlla rek laay ragal te dëgg rek laay wax te lu ma wax lu ne sama sama bàmmeel laa taxaw. Oumou Sow liggéey nan ma koy jàppale. moom tamit la même chose mu jékki-jékki téye boppam. woowatu la woowatu ma woowatu ma ko Oumou Sow on était on était des frères et sœurs. ay frères et sœurs lañu Oumou Sow album dama doon sonn këram laay dem damay bàyyi sama kër dem këram muy bind ma ne ko nii muy wax ma ne ko du muy taasu ma ne ko du nii. di ko teg bi di ko teg si bi man ak moom ñuy ànd. di ko woyal woyu yéene boo doon xoolee produit Oumou Sow yëpp li ma see woy yéene la. fàttali ñu si ay fly to fly. fly atterrissage. daanaka yi ko taal. yi yëpp mm. maa ko woy mm. ak woyu yéene. parce que papaam mm-hmm. dan daan toog mu ne ma ah seen ànd bi rafet na trop yaayam tamit fa zaalit may dem këram guddeeg bëccëg mais gis nga ni da nga toll foo xam boo demee ba màgg dama dem ba sentir ni peut-être màgg naa tuuti màgg gu ma nag mm. naa tuuti. ma ne non il fallait tamit ma toog te ma sama coin. demal sama bopp. te bi ma demalee sama bopp alhamdulilah samay mbokk ñëw nan samay samay samay xarit ñëw nan samay am di jàmm ñëw nan alhamdulilah. Euh, sa relation ak ñeneen euh, bees nii sëñ Waly Sidi Diop ak ñeneen ñi nga xam ñu ngi jóg. non Waly un frère. c'est un dund ak moom waaw dañ bokkoon benn groupe di defandoo lépp. dañoo dundoo di defandoo lépp. di ànd avant moo nekk avant Wally di nekk Wally avant Malaw di nekk Malaw. Mm. y avait man la woon Mbaye Sy Ndiaye Cheikh Anta Adam Mbaye Birame Dieng. Mm-hmm. boobu fàllu mi rakam xamul sax luy clavier fàllu bi nekk si Wally xamul sax luy clavier. tu sais que ne Mbaye Sy moo njëkk a fàllu clavier Mbaye Sy Ndiaye percussionniste. Ah si dañoo doon benn clavier bu ndaw néegu Mbaye si Ndiaye. di si di si fo. dañ siy teg ay napp la ñuy teg ay napp ñu nekk fay ñu nekk si néegi mbay foofu parce que amoon benn groupe groupe bi dañ ko tuddoon groupe café gi dañ daan teggi café café ñun fa lañ toog mm-hmm. des fois ñu dem sama kër fa la ñuy toggee ay c'est bon léegi am am benn groupe mm-hmm. bon état de ñooy defandoo lépp waaye ñoo doon nekk guddi ak bëccëg waaye si sama anniversaire la njëkk a yéegee naan day way sama anniversaire ma def suñu buntu kër concert en live. boobu xam nañ ko wala kenn xamul kuy waali. defagul xalaatu ko sax. xalaatu ko boobu ñu ngi doon foxantu di way benn woy gis nga euh, morsom bi. chéri boy wuyu ma wuyul ku lay woo sa téléphone sonné na géré wuyul ku lay woo waaw ñu koy décortiquer man ak Birame Dieng di si woyantu donc tamit mu ñëw adopce aussi.